jërëjëf mbokk internet di leen ñaanal jàmm di ko ñaanal sunu bopp tey bu ngeen ñu gisee fii nag ñu ngi sunu kër papa muy sunu papa Double Less di papa ci Balla Gaye numéro 2 di papa aussi ci Sa di leen ñaanal bu baax a baax a baax ñoom ñëpp papa ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. yaa ngi ci jàmm. maa ngi sant yàlla bu baax. gëj nañ la gis. Ah, maa ngi fii de pourtant damaa xawoon tawtawoon tuuti rek. mais alhamdulilah. sa relation ak sa ñaari doom muy Balla Gaye ak Sa complicité bi. neex gi mu neex lan la lan mooy secret bi. <laughs> ah doom la boo xam ne xëy na eh, boo ko seetee ci biir yar la bokk nu ma yar la xëy na loolu ma delloo. ñu nangul ma ko. mais bu dul loolu na moom bu nekk yenn xëy na moom xëy na du mel noonu waaw. waaw yar naa leen nag vraiment nangu nañ ma. seen yaay yi nangu nañ ma ko kooku moom alhamdulilah sant naa ci yàlla ba pare lu ma leen gën kii nag dëgg-dëgg mooy julli waaw julli moom fexe nañ ba ñi di ko def mu ko ñu koy def bu baax kooku moom sant yàlla bi la bokk ñu gëj la gis ñu gëj a gis sa ay doom yaa ngi ku ci mel ni Sa Thiès tey tey boo amoon potentiel adversaire boo xamante ne nii moom lay bëreel kan lay doon ci sa choix yow. non xam nga man mun maa jëlee choix lamba daal moom. mais yaay manager am. bi ak euh, seen choix boppam ñooñu bokkul. xale yi léegi daal ñoom ay magum jëmm lañ. mag la ñooy seet seen bopp. mais ñu ne ma daal dafa mel ni daal nga ne ma ceeb yi ñor na sa sa plat baa ma mun a ko ma mun a ko lekk. gis nañ tey ku ci mel ni ñoom per Balla Gaye numéro un tey ku ne xam na dafa tawat tey sunu papa Double Less bu amoon message bu muy lancé ci ñi nga xamante ni ay ancien gloire lañ bu gis nañ ko ku ci mel ni sunu papa Boy Bambara gis nañ ko ci ñeneen ak ñeneen suñ demee ba jëm mag yow pour maanaam ku leen toppatoo day xaw a jafe trop tey suñu papa Double Less bu amoon message bu muy lancé pour ancien gloire yi ëllëg bu ñu fi jógee suñ bàyyee bëre ñu am taxaw bu war lan lay doon. Ah, jiw la rek suñu doom yi amoon na ngay jiw sa sa doom di la ko jiw waaw kooku daal moom nu mal si mun a dolli ci ancien couloir yi dañuy jéem a seet moytu lekk yoo xam ne moom lu doy waaw mel ni yàpp mm-hmm. nañ ko moytu mm-hmm. waaw bu ñu ko defee daal moo gën encore am na diwlin yoo xam ne man daal docteur yi ñoo ma ko wax. waaw diwlin yoo xam ne dama koy moytu ñu ne ma bàyyi ko waaw loolu moo tax daal. alhamdulilah moo tax ma xaw tani. Mm-hmm. tey bu amoon message booy lancé la lay doon ci ancien gloire yi. ku ci mel ni sunu papa Balla ku ne xam na dafa xaw a tawat soo amoon benn kàddu boo ci lancé rek lan lay doon est que yaa ngi ciy jàpp ak sa ay doom. waaw moo koy man kay fan yii laa man de mënu maa demoon foofu mm. mais xam naa ne suma doom yi dem nañ fa bala xam naa ne dem na fa waaw kooku xaritam la mm-hmm. lu ma téye noonu la koy téye mm-hmm. waaw mm-hmm. man li lu ma jàppee noonu la koy jàppale waaw. maanaam est-ce que tey Balla amoon nga am nga benn adversaire potentiel boo xamante ne tey suñu papa Double Less tey bu ñu ne ko woon Balla Gaye ak Boy Niang taxaw na est-ce que est-ce que suñu papa Double Less dina signer contrat ah bu fekkee moom d'accord na ci. danaa ko signé waaw man mënumaa décider mën ko kii ak kii ñooy ñooy bëre laa moom force mhm. kooku moom ñeme ko. Mhm. nan nga gisee làmb bu njëkk ak bu tey mu ngi dox wala doxatul. non làmba muy muy commencé yàqu. Mhm. muy commencé yàqu lool. te yow selon sunu papa Double Less lan moo war a yàq làmb ci sponsor yi dañoo daw leneen ak leneen lan nga yaakaar ne moo ko yàq. promoteurs yi ñoo xaw bari ba pare xamuñu yoon lamb loolu moo tax lamba bugg a yàqu waaw dañuy bari ku jóg rek acca kooku bu yàggee yàqte doona indi waaw nit ku nekk da ngay bay nu moomee boo ko buggee na da nga koy jàng topp ko topp ko mu jàngal la ba nga mokkal après nga dem mais promoteur yi ndaw yi bari na lool lool lool lool ñoo bëgg yàq làmba de waaw. Ah, am na mbër yoo xam ne jar nañ ko million million yi jar nañ ko am na mbër yoo xam ne xëy na jar jaruñ ko mais moo koy kenn ku nekk boo liggéey naa da ngay ñaan yàlla rek nga avancé dem waaw waaw loolu la de. sunu papa Double Less tey ëllëgam ku ne xam na ne yaa ngi ci toll. ñu dégg na chef de quartier nga fii loolu ban satisfaction nga ci am ba yow nga doy leen nga doon seen chef de quartier fii ci Kër Massar. Ah, loolu daal lu koy indi yëpp laa biir. man suur boobu sax tiit naa ci samar. tam bi ñu ma nee day na bëgg a nommer vraiment jaaxal ma lool mais nag dama ko doon na. Mhm, mhm. ci waajur. Ah, mhm. sama baay. mooy délégué bi mais tey fukki kër ga soo mag ñoo fi nekk ñoo ko jël kookaay moom ah nañ ci góor-góor rek chef de quartier dafa métti dafa métti am na loo xam ne dañ yaakaar yow li nga yore def du jeex fekk na nag yorloo fa dara waaw il faut nga muñ nag koo gis nag da ngay gis dof nga gis ku. ku ni tey waaw da nga jàppaleen noonu kuy foree fii tey boo foroon junni doo ma ko jox mais boo fare for fii benn xale bu réer pièce d'identité nga indil ma ko kooku xam nga yaa ngi may indi coono waaw man léeg-léeg ma carré fii xale yoo xam ne day dem ba au moins quatre jours cinq jours mbaa semaine mhm. am na yoo xam ne dañuy bañ sax ñu ne dootuñ dem waaw kooku loolu yëpp lu ko indi mooy xëy na doxinam na rek waaw ñu gis ñu gis àjjuma bi ñu génn làmb ñàkk ku ñuy wax sunu papa Doudou Seck yaay kat yi yéen ñaar yan relation ngeen amoon yàgg nañ yàgg nañ dama la ko mu ne wax depuis ma nekk sax mbapat la woon foofu la ñu xamante woon mhm. mu nekk côté Fass ma nekk suma bopp mais nag moom daal moom xamul kenn. dëgg mbër yëpp la amal jàmm. dëgg waaw. moo koy moom keroog tam ma déggee euh, Noël bi daal métti na ma lool. mais nag loolu la yàlla dogal. nit ku nekk daal sa bés bu jotee. Mm, fer bu neexee foo jaar nga dem. benn famille moo ñàkk. lépp moo koy moom. Mm. non baat bi moom yàlla ko may. waaw moo kay moom ñàkk nañ de ñun yëpp ñàkk na. est-ce que sunu papa Doudou na la way ba sa yaram yëngu. xay <laughs> xam naa ko bu baax xam na ma bu baax. waa moo kay moom. dana ma woy woy bu neex. vraiment ba de suma yaram tàng. waaw. ah yàlla <laughs> moo kay ñu ngi koy ñaanal yàlla rek. suuf woyof ci kawam. vraiment nit ku baax la nag. waaw kenn nga daa fekkoon man ni <coughs> suma tànga moo ma sonaloon waaw loolu moo tax. déw ma woon nag mais métti na ma nag. métti na lool maa ngi jaale waa waa lamba yi yëpp. famille lamba yëpp maa ngi leen koy jaale di jaal waa këram. vraiment nit ku baax la nit. nit koo xam ne eh, vraiment sant nañ ko sant. di ko ñaanal mm-hmm. waaw. moo yóbbu na lamb foo xam ne moom su marital ñu ngi lay sant bu baax a baax di la gërëm kàdd gu mujj gi boo amoon looy ñaanal waa réew mi lan lay doon. Ah, maa ngi leen ñaanal yàlla rek jubu lu ñu nekk nii temps yi de xaw na métti man nag maa ngi ñaan président bi mm-hmm. ñaan koy yàlla mm-hmm. mujjee bu rafet mm-hmm. fan yi gudd mais nag mi na ma mayee na may yenn yi ah coow yi bari na kaso yi fees na ne ko mu wàññil ma kaso bi moom rek laa ko ñaan waaw xam naa ne moom bu déggee message boobu dana ma ko may